alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mbooloo mi Cheikh Macky mu ne waxtu wi moo tax ñi teew ñëpp. mu ngi nuyu mbooleem ñi teew ñëpp. di leen ziare ci bisu ajuma bi te di leen ziare ci bisu ajuma bii. di leen sa ñaanal yàlla. te di ñu ñaanal yàlla nag. yonent bi dafa ne defal teraanga. yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ku la defal teraanga. fexeel ba fay ko lu ëpp loolu. fexeel ba fay ko lu ëpp loolu. soo lottee ci loolu. boo lottee ci loolu. bu mu la njëkk ci ñaan yàlla. bu la jëkk ci ñaan yàlla. kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla. kon sëriñ bi mu ne mu ñu ñaanal yàlla. yal nañ ko yéex a fayante. yal nañ ko yéex a fayante amiin kenn ku nekk sa bopp nga ñëwal kenn ku ne sa bopp nga ñëwal. nit ñuy wax ne féete dafa am rek. mu ne dañuy wax ne féete dafa am rek. waaye Kéba moom. waaye Kéba moom. mooy jëmmi bëgg baay. mooy jëmmi bëgg baay. ku bëgg baay rek. ku bëgg baay rek. bëgg na la ànd na ak bëgg na la ànd na ak yow. gis nañ ñi teew ñi ñëpp. kon ñun ñu teew ñëpp. tey ajjuma dafa xat. tey ajjuma dafa xat. ñu ngi nuyu euh, Serigne Modou. ñu ngi nuyu Serigne Modou. ak ñi xam ne teew nañ. ak mbooleem ñi teew. Cheikh Mouhamed Lamine doomi Alaaji Ousseynou mu ngi nii. Cheikh Mouhamed doomi mu ngi nii. Cheikh Ibrahima doomi mooy taawu Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa. Cheikh Ibrahima mooy taawu. Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa. ñëpp teew nañ. ñëpp teew nañ. mu ne mbokk nag mooy rek mooy lii rek. mu ne mbokk nag mooy lii rek amul firi bokk rek. ngeen bokk su neexee ngeen bokk mu gën a neex su neexee ngeen bokk mu gën a neex. su naqadee ngeen bokk mu gën a oyof. su naqadee yi ngeen bokk mu gën a oyof. tax ngeen ñu yëg ne ñàkkuñ dara. tax ngeen ñu yëg ne ñàkkuñ dara. yal na yàlla fayanteeg yéen. yal na yàlla fayanteeg ñun yaa rabbi. yal nañu yàlla uti ci moom. yal nañu yàlla uti ci moom. ba mel ni jógu fi. ba mel ni jógu fi. mu uutu ko ci ñun ba mel ni mi ngi fi. mu uutu ko ci ñun ba mel ni mi ngi fi. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla mën na ko yàlla na ko def. ci barke takkusaane ajuma ji ci barke takkusaane ajuma ji. wa ma zaalika alallaahi wa ma ku ne mën ngaa dellu. mu ne kenn ku ne man ngaa dellu. kii daal bëgg baay la. mu ne kii daal bëgg baay la. ku nekk rek sa bopp nga ko jaale. ku nekk rek sa bopp nga koy jaale. ñu ngi gërëm ñëpp di. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. voilà su taxutoon yaatu bi. mu ne bu taxutoon yaatu bi. suñ doon wax yi xam ci moom. buñ doon wax yi xam ci moom. ba jant bi so du du du jeex waaye nag waaye nag luñ mënta wax lépp luñ mënta wax lépp ñu ngi cey wax tuuti rek ñu ngi cey wax tuuti rek asalaamaaleykum asalaamaaleykum jërëjëf sëriñ bi fatiha fatiha salaatu fatiha fatiha ñett salaatul fatiha billahi minash shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin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 سبق لنا صراط الحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الإمداد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم سبقنا صراط الحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله